asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi delluwaat di santaat yàlla sunu borom cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul mukk fu mu yem sunu dund gépp de ak cant la waaye sunu bisub tey jii dollikuwaat nañ ak cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem dellu ko waat it fet di lig sunu laxasaay ci gën a liggéeyal Serigne Touba Xadimal Moustapha ci toolub lislaam bi di dellu di tuubal yàlla ci waxtu wu ne ci jamono ju ne ci saa su ne ci rëcc rëcc bépp boo xamante ni dana nuy gaar ci sunu pas-pas wala ci sunu kàddu wala ci sunuy jëf te tuub googee ma ciy tuubaaleel bindee fi yàlla yëpp di ñaan nun ñëpp yàlla jéggal nu sunuy rëcc rëcc te nangul na sunu yiw yi nga xam ne ñoo ngi koy jéemantu ngir jëmmam di nuyu imaamu dëkk bi di nuyu chef du village di nuyu kilifa yi fi nekk yépp di leen delloo ab nuyoo tey biig ci dalal gi ak tatagal gi biñ sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama noo ngi sant Mawlana Seyxina al Xadimi di sant it ki nu sunu wayjur booleeloon di Maolana Cheikh Salih Mbacké te ñuy xeeñ am ngirëm ci lislaam ba tax na daara yi ñuy jëmmal yépp ngir tasaare njàngaleem Sayxil Xadim la jaam bi nag léeg-léeg am na ñooñ boo nee maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba wala nga ne maa ngi sant yàlla ko yonent bi ak Serigne bi dañuy defee ni daa am looy bokkaale fekk déedéet ku ci ne dafa am cantuk boppam gu yàlla ci jëmmam yàlla ku ne xam na ni moo nu bind bu yonent bi day jot ci nun banaan banaan nu yàlla nee na daa fekk yàlla neel nu fa ba nu nekk fa bu Serigne Touba dee jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal bañ jot ci am njàngaleem daa fekk nu ne fa waaye kenn ku ci nekk am na wàccuwaayu boppam boo xamante ni am na ko ci noonu kon ku ci ne ak xeetu cant gañ koy sant te bokkut ak it cant ya ñuy cant wayjur yi ak bokk yi ak kóllëre yi di nuyu suñ bokki chrétien yi Henri li nga wax rafet na lool kàddu yi rafet na matale na nun day sunu borom daf noo dimbalee baaxee nu taw fee xel no balun gis moom rek lañ cey gis ku nu gisit moom rek lañ ciy gis fii ne mënumaa xool ni kii lii la wala kee lee la suñ borom jëlee na ma foofu bu yàgg donte nag ci pas-pas buñ koy wax ci diine am na fu ma fi nekk lu kenn natt bi wut waaye nag beneen jaamu yàlla bu ne lay coobara yàlla ci yow nangu naa ko lay sa pas-pasit nangul naa la ko ndax li may wax waxtu ni nit ku ne lu sa pas-pas rëy ci yow ne la wóor ni keneen ka ca desit noonu la pas-pasam mel ci moom ca la mu gëm moo xam nun ñu bokk yàlla jiñ jàpp ni mi ngi ci asamaaw muy diine yi nga xamante ni ci asamaaw lañ jóge ak ñi nga xamante ni seeni yàlla ñu ngi ko jàpp ci ay yeneeni bindeef yi ci des ku ci ne fi mu ne lam nekk màndi na ko ci biir yooyu ñu nekk yi tamit ku ci ne bu dee diine lislaam la ku ne xam na ni ay ngir yu bari la ay kuréel yu bari la waaye kuréel bu ci nekk it la mu nekk màndi na ko boo demee ci christianisme ak catholique yaakaar naa ni bu mën nañoo wute ci biir ay njàngale yu bari la ku ci ne fam ca jàpp rek fa ko ca doy rek fa la jàpp loolu mooy adduna boo dee ci wàllu zahir la it noonu la mel fii ne ci wàllu réew mi kenn ku ci nekk fa ko doy la ne rek waaye ku ci ne nag li la doy ba nga jàpp ko nangulal keneen ka ca desit mu sañ a jàpp leneen loola it doy ko nag waaye bul ni li ma jàpp rek la li keneen jàpp du ko bu mu doon ci diine bu mu doon ci wàllu adduna ku ne na nangul morom ma ni nga amee sañ-sañ ni diine lislaam mooy sama diine moom laa gëm nangul keneen it jàpp leneen la ko doy te téye ko bu dee ci wàllu politique la tamit ba tey noonu rek la kenn ku ci nekk fa mu téye mu doy ko na ko ca dëgg bàyyi te te ñun ñëpp nag nu fexe ba yar suñu bopp ba yooyu yëpp ñu bañ cee dugal bakkan ak bànneex ak njariñ lu teew ndax yooyu dana yàq lu bari fitna yi yu ci bari yu koy indiloo rek la njariñ lu teew rek la ak sa bëgg-bëgg personnel muy sa bakkan loolu rek la waaye du leneen kon dëkk bi nii ñu ko fekkee nga xamante ni tey ñii ay jullit lañ ñii ay chrétien lañ waaye ñoom ñëpp ñoo bokk benn maam ku ne na nekk ca la ko doy te téye ko te sàmm ko li ngeen bokk muy dereet ak dëkk ngeen sàmmante ko ci seen biir te rafetal ko ci seen biir te yàlla rek a tax yàlla nag ëllëg mooy àtte li may wax waxtu ne ku ne yaakaar rek la am fii ne fu waay mën di nekk yaakaar rek nga am yàqin yombut am na jaam yu ko yàlla may waaye nag yombut ñi ëpp ci jaam ñi yaakaar rek lañ am kon nag ku ne na sañ a yaakaar ah buñ delloo ci yàlla sunu borom yàlla àtt kon saa bokki jullit yi bokki kerke yi yéen ñëpp kenn ku ci nekk nuyoo ba yàlla ci moom tey xàqam maa ngi ko koy jox ci gën ngaa rafetee naanam di dénkaane samay bokki taalibe ak bokki jullit yi ba ci samay bokki kerke yi kenn ku ci nekk rek am na wàll goo ca am ndax diine la deret dëkkandoo kenn ku ci nekk loo doonul ci lii rek da nga doon ca leneen la ca des kon li nu war a nun ñëpp rek mooy rafetal sunu xol rafetal sunu jikko ndax fi mu ne diine jikko moo ko tax a jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaq suñ borom daf maa yónni ngir ma mot li jikko ju rafet ji nga xamante ni ñu ko jiitu woon ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam loolu lañ doon def ci nit ñi man nga ne kon Seydina Isa alayhi salaam Seydina Moussa alayhi salaam Seydina Ibrahima alayhi salaam ba ci yonent yàlla Nuux ba ci yonent yàlla Aadama nga xam ne mooy yonent bi njëkk ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam kon jikko jooji nag nun ñëpp ci la ñu war a fexe nekk ci te fexe nit ñi ne ci mooy jikko ju rafet jikko ju rafet la ca gën a kawe gën caa màgg mooy nit ki fexe ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ñëpp ndax fi ne ku ne li nga bëgg ci sa bopp ci sutura bëgg ko ci teraanga bëgg ko ci jàmm bëgg ko ci aw yiw bëgg ko ku la fa teg boo ko defee ñi ci des rek jàmm am waaye boo ko bëggalee sa bopp bañal ko ñi ci des loolu rek mooy jur fitna kon ku ne ci noonu day góorgóorlu ba cër bi nga bëgg ku la ko jox màggal gi warmaal gi tatagal gi taxawu gi dimbali gi jàppale gi yërëm gi yiir gi ni nga ko bëggee ci sa bopp ak jàmm ji nga fexe ba di ko def ci ñeneen ñi ci des kem ni nga ko bëggale sa bopp waaye bul ni man rek bu sa mbir baaxee rek amatoo ci keneen soxla amatoo ci leneen soxla déedéet loolu du doxiinu nit ku baax nit ku baax day fexe ba am njariñ ci kaw suuf di jariñ nit ñi te doo leen lor te lor yi jóge ci nit ñi nga mën koo gàddu loolu bokk na ci jikko ju rafet doo lor nit ñi te da nga leen jariñ waaye nit ñi bu ñu wëlbatikoo ci seenu manqué ak seenu matadi it di la lor da nga muñ lor yi bàyyi ko ci ñoom di jëm si ci yow ngir yàlla daraja ju jafe la nag ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ku la dog na nga ko jox lu jafe la ku la xañ na nga ko jox lu jafe la ku ñaawal jëmale ci yow na nga rafetal jëmale ci moom lu jafe la waaye dañ nañ xam ne ñoom loolu moo leen fi indi te ndigal yi ñu joxe loolu mooy li ci gën a kawe yërëm bindeef yëpp te jëmm yàlla rek a tax fexe ba it di suturaalante ci sunu biir waaye di jàppalante ci sunu biir waaye di dimbalante it ci sunu biir di laabirante it ci sunu biir waaye nag nuy nangu ak laabire it ci sunu biir te jëmm yàlla rek a tax ndax fi mu ne buñ nee aw weñ nit dem na ci sawara weñ nit dem na ci sawara weñ wuy naaw nit dem na ci aljana bokk weñ wuy naaw nit dem na ci aljana te fi mu ne nit ki lu la yóbbu ci béréb rek mën ngaa jël safaan ba it ba tey kon man ngaa wax ni weñ nit mën na cee demee safaan ba waaye gannaaw weñ wi naaw ci la nit demee aljana astuma bindeefum yàlla di nit kem yow kon nit koo gis yërëmal nit koo gis dimbalil nit koo gis teralal nit koo gis wormaalal nit koo gis màggalal minis koo gis sagalal nit koo gis suturaalal te jëm yàlla rek a tax ndax àdduna dafa tëradi te kenn xamut fooy mujj xamoo ci lan ngay mujj fi mu ne yow yaa ngi ci place bu xéew bu taw feexe bëgg a xeeb kee nekk ca yaa ngi ci kër gi bëgg a xeeb kee nekk ca naaj wa te amaan yow yaa ngi dox jëm ca naaj wa wala kër gi mi ngi dox jëm ca ka ca naaj wa naaj wi jëm ji jox jëm ci ka ca ker ga te loolu lépp doo xam yaa ngi ci ak wér bëgg a xeeb ki wér di fekk yow yaa ngi dox jëm ci ak wér di kee mi ngi dox jëm ci ak wér yaa ngi am bëgg a xeeb ki ñàkk te fekk ki ñàkk mi ngi dox jëm ci ak am yow yaa ngi dox jëm ci ñàkk loolu yàlla fi ne mbir yi daf koy wëlbatiku nu mu daf koy wëlbati nu mu ko soobe kulli yawmin huwa fi sha'n bis bu set rek yàllaa ngi ci mbir mu muy feeñal te xamoo it nan la koy feeñale ak feeñal ga it nan lay demee ci yow mooy tax nun ñëpp nañ jàppe suñu bopp ay doomu aadama suñu borom it moo wax ne dafa teral doomu aadama kon doomu aadama bu ne na tàmbalee teral beneen doomu aadama teral beneen doomu aadama mi ngi tàmbalee ci teral sa bopp mooy ni nga bëgg ci sa bopp rek xamal ne keneen ka ca des loolu la bëgg ci boppam damay faral di wax ne fi mu ne nit ku mën di doon boo ko woonee sa bopp boppam lay gis du la gis yow de waaye boppam lay gis waaye boo ko wonee boppam yow lay gis nit boo ko bëggee wan yow ni nga toll moom duutu la gisati boppam rek lay gis waaye boo ko wonee moom ni mu toll gëdd gi ko sunu borom jox cër bi ko sunu borom jox nga jàppe ko noonu fonk ko noonu warmaale ko noonu ngir jëmmi suñu borom li sëriñ bi wax ne waraaxi fii kulli xalqin xaq man xalaq sàmmal ci bépp mbindeef bu man di doon àq ki ko bind di yàlla bul xoolati kii nàngam la kii lii la kee lee la déedéet xoolal jëmmi yàlla ci moom boo ko defee rek lépp day daal di rafet ndax fi mu ne ku ci ne bëgg na njabootam ci nun ñi toog ak nu njabootam mën a mel nag fii ne jaam ba nga gis mu doy di ba mel ni man xeebu ba mel ni man di def ay rëcc rëcc yi warmaalal suturaalal sagalal taxawul dimbalil ngir jëmm yàlla boromam ndax fii ne ku jur doom am na foo ko teg am na noo ko jàpp am na bët boo koy xoolee. lu sa doom dëng-dëng su génnoon ci mbedd mi melo bu man di yore bis boo gisee ku dal ci kawam rek ngir melom woowee rek mu naqari la donte yow melo bi mel néexu la gënalu la waaye bu nit jógee fee rek bëgg ne doomi diw yi day nangam rek soxal jóg donte da nga ko génne woon sa kër ngir melo woowa sax su boobaa kookee loola mu ca def du la naqari la dana la naqari lam ca wax dana dana la naqari yàlla nag noonu la ñu jabootee nun ñëpp donte mata dinañ manqué nañ doy dina nit nañ seet yàlla mi nu bind kenn ku ci nekk nga xool ko ci sa moroom suñ ko defee rek lépp dana jakk te lépp yi dana dana dana rafet kon dëkk bi ngeen bokk dëkkee xool leen bokku deret gi yàlla moo leen ko boole na ngeen ko sàmm mbokku diine gi ñu ko ci bokkale nañ ko sàmm ci biir sàmm gi ngay sàmm mbokku deret gi da nga sàmmaale nit ki leneen lam doon ak feneen fa mu féete kon loolu maa ngi koy dénk sa bopp te di ko dénk ñëpp suñ dund gii ñu xam ne dund gi lu gàtt la te ci li ëllëg war a yéwee ne te ëllëgee mu wut fenn te comme doon ci nun xamul da ngay kañ ngay gont jëm alaxira wala kañ ngay xëy jëm alaxira te lépp loo man di nekk xamal ni isaa kunta fii amrin fa kun fiihi muhsina fa amma xaribin an tamadin wa taarika mbir moo nekk rafetal ca ndax ci lu gàtt ci lu néew lii dana denc say loxo dugg ci yeneen i loxo fii ne nun ñi ñépp ku ci ne li la yàlla dénkandi ci ay loxo la jóge dem ci yow ñëpp nag ñoo ci bokk yam nun ñi ñu ci bari seeni wayjur génn nañ àdduna nun ñii dañ fiy jógee bàyyi fi sunuy doom sunuy doom dañ fiy jógee bàyyi fi sunuy sët kon nit ku ne lépp lu mu nekk moo xam borom cër nga daraja ji la yàlla jox bul ko xeexe kenn bul ko bëree kenn bul ko doy di la kenn xamal ni lii ndénkaan lu la yàlla jox la dana jóge ci yow dem ci keneen rafetal ca sa kem kàttan di wax dëgg di def dëgg di def ak njub ndax fii nu nekk lépp muy dénd bii nu nekk di kaw suuf am na ñu fi doon dox jant bi di leen tiim ñuy dox ci kaw suuf si tey suufa ngi seen kaw suuf mooy leen féete kaw tey nun ñii fi doxande it yàgg yàgg ci biir suuf lañ jëm suuf féete ñu kaw kon nag nañu rafetal rafetal gi suñ digganteeg suñu borom ci lañ koy tàmbalee ci li nu yàlla sant ñu di ko def li nu tere ñu di ko bàyyi boole ci di ko tuubal suñuy rëcc rëcc te di ko ñaanit mu nangul suñuy yiw suñ bindee fi yàlla yi ñu bokkal nekk ci kaw suuf it li ñu bëggal suñu bopp ñu bëggal leen ko bañ a yéene kenn lu ñaaw bañ koo wax kenn te bañ koo jëflante kenn réew mi ñu bokk dëkk it nun ñépp nu bokk ci di ci woote jàmm di ci wax jàmm jàmm nu jig te jàmm ku koy foyee dangaa xamul réew yi ñàkk jàmm ndax fi mu ne li may waxtaane waxtu wu ne fàttalante rek la fàttali fàttalante waat rek la fii na mag ñii toog ñoom dong ñoo xam lan mooy gone te mënuñoo wax ak gone yi ba gone yi dégg leen ndax dañoo tolloowut nii balay gone yi dégg li mag ñi wax rek dañoo toll ni mag ñi xam lan moo di ak mag li ci ay jafeñ-jafeñ ci ñàkk wér ak ñàkk kàttan ndax kàttan moom yàlla dañu koy dénk dong boo duggee ñeen fukki at jëm kaw da nga yëg ci kàttan goo amoon ci gis akub dégg ak yëngu lépp da nga yëg ni mu ngi tàmbalee wàññeeku te kanam lay jëm dootu deltu gannaaw gone gi nga xamee nag fu mu toll mi ngi cëpp cëppee ka daw am kàttanam yore dereeti ndaw boo koy wax yu bare bare bari du la mën a dégg ni nga xam ne ak dund fii ne ñu ne ci biir bàmmeel yi dong ñoo xam njëriñu dund waaye ñun ñu nekkandi fii ci kaw suuf war a góorgóorlu def suñu te yëpp njëkkanteeg suñu dikk ba ëllëg duñ réccu duñ mën a xam loolu mukk ca ña ko xam duñ ñu ko mën a wax lu dul ci lisaanul xaal te nun ñii ñi ci ëpp duñ dégg lisaanul xaal ki wér fii na xamul njëriñal wér ki am ak wér di dox nu mu ko neexee di waxee nu mu ko neexee cër bu mu yëkkati mu jóg kooku ki tëdd na laaj ba yëkkatutut benn cër moo xam ak wér dëgg dëgg mooy lan waaye ki ko am ñaari du ko xam leneen lu mën di doon ki am alal léeg-léeg mën na koo bañ a xam fii ne tey boo boo doon def sa sa robinet kër foo duggee rek boo ta ubbee robinet am boo toogee ñetti fan yoo amatum ndox ci ngay door a xam ñàkkum ndox waaye booy foo saa soo xellee am ndox saa soo contacté am courant doo xam njariñ yooyu fi ne nit ñaari lu ko lu ko yomb nii téye ko du ko xam mooy tax nit bu amee jàmm ñaare du xam lan mooy jàmm rawatina nga dëkk ci doo xam lan mooy jàmm fii fitna takkut fi sa kanam dëgg dëgg fitna doo xam lan mooy jàmm te fitna léeg-léeg dana tàkkee loo xamante ni fay nga dootul yomb mooy tax fitna warit na koy wattandiku ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale alquran jàngale ko noonu wa taqoo fitna tan laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa ndax fitna kat bu jógee du caa génn ña ko taal dong ca lay yem mooy tax nañuy dal réew mi li ma wax léegi ci wàllu diine noo ko séq te mënuñu ko séddalikoo kenn ku ci nekk am nga sañ-sañu kala doy nga ànd ak moom fa la doy it nga féete fa waaye bàyyil keneen it am sañ-sañ moom itamit fa ko doy ak ka ko neex mu ànd ak moom waaye lépp na tege ci dëgg akuk péete waaye bu mu doon ak par parloo ñi ëpp nag par parloo la ñuy def fuñ far ku waxut jëmale foofa ñu waxalab safaan ñële it fañ féete ku waxut jëmale foofa it ñu waxalab safaan te fekk du noonu de ku ne mën ngay wut la ngay wut waaye teg ko ci yoon teg ko ci ngor teg ko ci diine gis nga sunu réew mii di Sénégal ngor dafee nekk lu yàgg te diine jaaru fi ngor nee na Sénégal lu yàgg diine chrétien awu fi diine islam awu fi naka jekk dañoo amoon lu ñuy jomb naka jekk dañoo amoon lu ñuy bañ naka jekk dañoo amoon lu ñuy bëgg naka jekk dañ daan sàmm suñu kàddu daawuñu wor daawuñu fen daawuñu wuruj daawuñu wax lu dul dëgg lépp luñ ci nit mas a wax loolaay ne ci yow la koy dindi lu wér lay doon loolee nag nañ ca delluwaat te tëyewaat ko te jàpp ko kon nun ñu fi teew ñëpp nañu bokkuwaat gën a góorgóorlu farlu di fàttaliku ëllëg te di ko bàyyi xel te lépp luy yàq ak bokk mbaa mu yàq diine wala mu yàq ak dëkkandoo ñu di ko daw lépp luy indi jàmm ñu di ko wax ak a jëf ak a meloo yéene yi nga xamante ni am nañ ko fi lii ab tàmbali rek la ci waaye yéene jiñ am fii lii ab tàmbali rek la ci rafet naa njortu ci ni bu nu yàlla mayee fiq sunu fan te yokk sunu wér te yokk nu taw fiq danañ dem ba mu àgg foo xamante ni ñun ñëpp dana kawe sunu njort lu ñu njortoon ci njort lu rafet ci mbaaxu yàlla ak yërmande ak taw fi xam kon sëñ Mouhamed Waly Faye ñoo ngi leen di gën a nuyu di leen gën a siyaare ak seen wayjur yi nga xamante ni ñoo ànd ak yéen liggéey bi ba nii ngeen ko mën a ngeen mane ko ne ndax buñ ci àndutoon ak yéen kat lu ngeen ko bëgg bëgg bëgg nam war a rafete mën naa des kon seen way jure yi ànd ak yéen taxawu leen dimbali leen ba liggéey bi mel nii ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ jibi mii nga xam andi nañ ko fi ak sëñ Malick di sant sëriñ Cheikh Jaxate mi nga xamante ni daara ji bañ koy tàmbali ca ngeeñeen Miftaaxul Xayri gone yëpp moo leen yoroon di leen jàngal ba niñ ñëwee Manaarul Huda ba tey jii daara yu bari juddu ci daara yooyu tamit ñi koy neef yi di jàngale yëpp ci daara joojee fa lañ jànge ba mokkal ba ñëw fii di jàng fii ni ñu ko defee fee Touba biir bërki démb def ko fii Touba Seeseen it fii ci commune u Seeseen boori Caajaay daara ma nga fa joo xam ne lépp yemb na am na ko fa nekk di jàngale comme nii kon am ngeen jaajëf njàngale mi ni ñu ko gisee dafa kawe sunu njot ndax bi mu fi dikkee léegi matagul juróom-ñetti weer wala ci lay yem képp te gone yi fi ñu toll dem ba am am ci ñoo xam ne ñu ngi ci xamayata loolu rafet naa njootu ci ni ca ca li ñuy jàng xam nañ ko te fer nañ iji boole ci ab yar loolu mooy liggéeyal Serigne Touba ci lislaam te nun loolu dong mooy suñu xemmemteef amaatuñ beneen xemmemteef moo di lépp lu ñuy bay wala ñu di ca yëngu ci ab liggéey lii dong lañ ci soxla soxlawuñ ci leneen bokki taalibe yëpp it maa ngi leen di soññ ci loolu liggéey yi nga xamante ni noo ngi koy def nit da ngay fexe ba mënal sa bopp dafa am kilifa koo xamante ni dafa maa mas a fekk manaaroon fa daal ci kaw ma woor at moomu 2018 la at mi yëpp dama ko woor lu dul korite ak tabaski ak màggal Touba 2018 mu fekk ma ca kaw kilifa la mu fekk may doog mu ne waa sëñ bi ñu me nga koor la ma ne ko yaar yii képp ku kilifa diine ñu lay tudd di bul ko teg ci deret xam nga deret am na solo amut solo ndax sëriñ Touba yonent bi ci nga koy tàmbalee amoon na ay bokk waaye ngëneelal yàlla ci moom la ko yàlla awale sëriñ Touba xadimal Moustapha léegi koo gis muy dox nii laa ci bokke ak fii laa ci bokke mooy doon ab lijjanteem bu dee ci mbokk la waaye loolu nag tëxutoon kenn di topp sëriñ Touba li tax maam Thierno bi rek ñu bokk benn baay mu topp ko maam Cheikh Anta ñu bokk benn baay mu topp ko sëñ Mor Diarra ñu bokk ndey ak baay di magam mu topp ko bu doon deret rek la kenn ku ci nekk la ci sëñ Touba am dong la ci am ndax kii la bokkal way juru góor ak way juru jigéen ñii ñoo bokk wenn way juru góor waaye suñu borom moo yor ngëneelam ak jagleelam tànn sëriñ Touba def ko liggéey laa konum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci moom ak leeram goo xamante ni képp ku jonjoog moom jox ko sa bopp dana la fóot ba nga set ndax jàng ngi fi woon xam-xam a ngi fi woon waaye nag réy nga ca wet ga gis sa bopp ngi ca wet ga gis la nga ca ca wet ga te yooyu bu dañu ci nit ki nit ki du mën a jariñ loolu moo taxoon ñu topp Serigne Touba Xaadimu Mustafaa kon képp ku ko bëgg a liggéeyal ci lii nga koy liggéeyal mooy fexe ba njàngalem lislaam yaatu daara yaatu ñu boole ca ab yar ci wàllu jikko nit ki xam boromam xam moromam xam boppam waxuñu yëg boppam de waaye xam boppam kon loolu mooy sunu xemmemteef mooy sunu yitte bokki teel bi yëpp it nag ma ne kilifa googee képp ku ñuy tudd di tudd sëriñ bi nun da ay taalibe lañ te jàppee suñu bopp yi taalibe yi gën a doy te gën a xeebu te gën a woyof waaye war ngaa nangoo jaamu yàlla ba saru di yëg sunu borom yëg goo xam ne doo mën a dellu ci kenn ku dul yàlla waaye nga nangoo liggéey it nag ba manal sa bopp ndax sëriñ bi dañu ci daan ñaax ku la manal sañal la te jógee ni ku la manal war laa sañal yaar yooyu lu ñu war a taxaw la war caa gën a yokk suñu te ñun ñëpp góor góorlu ci nangoo jaamu yàlla bu wér waaye góor góorlu ci nangoo liggéey yi bu wér ba ñuy manal suñu bopp daara jii ñoom ñii fi nekk ñoo ci def seen yitt ak seenu taxawaay yeneen i daara ji desit ñun ñëpp ku ci ne taxawaay ba mu ca am xam na ko waaye ñu xam ne nag dañuy door a tàmbali liggéey bi ndax fii kat wax naa fi ay yéene yoo xam ne du ne ci sama xol la yu ma fas yéene jëmmal la te xam ngeen ko noonu laa ko amee ci yeneen i béréb it yoo xamante ni noonu lañ amee yéene ji it ak yitte ji ak jëmmal loola. feeg noo ngi dund suñu roox di dem ak a dikk amuñu benn xemante bu du taxaw ci loolu suñu yitte jëpp ñu def ko ci loolu. lii sëriñ bi wax ni midaadi wa aqlaami wa lawxi wa kalkali wa jismi li man lii wajjaal xeesa wala wax baax xalimaam du ko sëpp ci daam mukk jublu xibla di bind. ay daam du ci sëpp xalimaam mukk jublu xibla di bind teg ko ci kaw alliwaam muy xellee ci dënnam di ca sotti ako yaramam kenn dong la koy jubale mooy ki ko defal ak wattu gu mat sëkk sàmmal ko léppam sàmmal ko ñëppam sàmmal ko féppam may ko may yoo xam ne day sar adduna ak alaxer te li ciy feeñkat luy tuuroo ca ndab li dong la waaye liggéey ba dëgg àggaguñ ci kon nag noonu yi rek moo war a doon suñu yitte ñun ñëpp suñu lépp nu delloo ko sant baatub sukkur mooy cantub jëf kon lii ñuy def lépp ci loolu rek la dugg feek daal sunu ruu gii mi ngi dem ak dikk li ñu fas yéenee doon muy sunu yitte ak sunu pas-pas ak sunu doxin nga xam ni ku dikk ci la ñuy fekk ku dem ci la ñuy bàyyi feek sunu ruu mi ngi dem ak dikk te loolu la ñuy batalee sunu gannaaw mooy yaatal lislaam muy lislaam ju sell nag joo xamante ni li nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa mbokki jullit yëpp waaye kur ab jullit li nga bëggal sa bopp nga koy bëggal nekk nit ku am tolérance ku am tasaamoo di jéggale ak a jéllale di dogal ngant bindee fi yàlla yëpp waaw ñun ñëpp war nañuy tàggat sunu bopp ci jikko waaye jikko yenn jikko ëpp ci solo nag ñàkk ak bañ a gaaw a mer nit du gaaw a mer nit du yàkkamte ab jullit du yàkkamte ab jullit du xër ab jullit du rëy ab jullit du añaan ab jullit du njistal ab jullit du wax lu du dëgg te yaakaar naa noonu ko lislaam di bañe diine yi ko jiitu yëpp noonu lañ koy bañe ndax diine jii ni ko ki ko indi waxee kat day mot li jikkoy rafet yi jiitu woon dara kon loolu ñëpp noo ci bokk baate kon noo ngi sant ñu fi teew ñëpp di ñaan képp ku fi teew yàlla defal la jéggal gu sax defal la wér gu sax buy yokk ak fanu gudd ak wér gi yaram sunu borom dox suñu diggante ak seytaane te musal nu ci mépp ndog ak pakk ak musiba ak balaa te defal nu mujj gu rafet ndax ak mujj rek moo am solo noo ngi dund ni nii waaye kenn xamut ci looy mujj ak nan ngay mujje te yaar yi jaam bu ko xamut war ngay teey ci sa moromam jaam beneen bu mën a doon ndax xamoo kooku ni muy mujj xamoo ci looy mujj kon noo ngi sant ñëpp chef de village noo ngi leen di sant mbokki taalibe yi yi fi teew yëpp ak mbokki taalibe yi fi teewut ku mel ni sëñ Abdoulaye Sène te mu nekk ak yéen bokk ak yéen liggéey bi te am yitte pas-pas lool ñëpp noo ngi leen di sant ak gërëm ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo ànd teew fi ñëpp it noo ngi leen di sant ak gërëm muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak njaboot gi nga xamante ni ànd nañ fi ñun ñëpp ci ci soxna yi noo ngi leen di sant nii ngeen taxawe ci ci ci daara ji rafet na lool noonu rek la nit day fexe xam diineem ngir mu mën koo jëfe te yàlla tax kon noo ngi sant ñëpp day gërëm ñëpp soxna Marie Thérèse Faye noo ngi lay dalal noo ngi lay sant ci sa taxawaay bu rafet ndax bi ma ñëwee sëñ Waly mi wax na ma ni daara ji biñ koy bëggali këyit taxaw nga ci taxawaay bu rafet rafet rafet li li ngay taxawoo ñii fi nekk it noo ngi koy yëg noo ngi koy dégg kon nag yàlla na leen yàlla taxaw yéen i tamit te yàlla sàmm leen te yàlla aar leen te taxaw leen te dimbali leen li ngeen téye téyel ko askan wi tamit yàlla na leen sunu borom gën a yokk kàttan te may leen yokk leen am xel ba ngeen xam ni askan wi ngeen téyel yàlla dimbali leen it xiir leen it yokk leen a xiir it ba seen yëngu ak seen dal yëpp ngeen jëmale ko waat ci lay jariñ askan wi te bañ leen a lor jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu